tàqali gi nga xam ne moo am ci mbir mi moo doy waar journal bi nee na bi nga xam ne moo fekke woon keroog ba nga xam ne astu soxna ma nga fa moom tim ni ki démb daan nañu koy déglu te nag soo muy tuule rek maanaam musiba ma bu kumba gu rëy mën naa dal ci kooma yéen a kaay gi de la xëy duñu xibaar naa ñu Amadou Gueye Diouf mi nga xam ne moo jiite woon hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga jëlee nañ ko fa ku ñuy wax Mamadou Abdoulaye Gueye moom lañ fa moo ko fa a kaay gi nee na en tout wax ne enquête bi jamono ci ngi wéy te képp koo xam ne laale nga ci mbir mi danañu jël nag ay daan yu métte xam ne moom la ñu gis ci plante bi na waar génn xeetu a xam ne moom la la bu ngeen déggee yu bare bare bari maanaam bu mu leen bett képp koo xamante ni rek njort nañu ne yow mi ci danañu la déglu te nag soo moytuwulee maanaam danañu la teg loxo journal bi nee na mbir mee garaaw yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaara naan ñu li nga xam ne moo xew lu ko bu dee nag mbir la moo xam ne mu doy waar la waaye tamit li nga xam ne moo xew ci hôpital Dantec moom tim mbirum doy na waar genn xeetu doy waar goo xamante ni maara détaillé maanaam jafe-jafe yi nga xam ne moom la hôpital Dantec di dund loolee moo doy waar journal bi ne nag hôpital bi dafa màgget ba maara détaillé bëri na ci ay tabax yoo xam ne maanaam bu ñu xëyee ne leen daanu na ci hôpital Dantec bu mu leen bett hôpital Dantec jafe-jafe yu métte métte la ñu am ci lu jëm ci wàllum ndox hôpital Dantec jafe-jafe yu métte métte la am ci lu jëm ci wàllum courant nee ma électricité maanaam médecins yi bëri na ci ñoo xam ne amuñu bureau communication amul ci seen biir jafe-jafe accueil moo fa am plomberie inondation bu tawee hôpital ba dafay fees del leen ndox yéen a kaay gi de Le Quotidien ñi nga xamante ni ñooy médecin yi nee nañu ca hôpital Danteka ñoo ngi moom la ñuy dund loolee sax moom a def du a def correctement ci hôpital bi ñoom rek la jafe a kaay nee na nag sunu waxantee ci boppam moom malade hôpital Dantec moo feebar moom ci boppam yéen a kaay la sa hôpital Dantec feebarul ndànk sax ndax li nga xam ne mooy service néphrologie ba maanaam jamono ji sax doxula ah yéene kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Bougane Gueye Dany mi nga xam ne dañu koo tudd ci lu jëm ci complot Ousmane Sonko bi mbiri Adji Sarr Bougane Gueye Dany nag daan na koy weddi ba tëdd sa naj waa nee na moom xamul Adji Sarr xamul tamit ku jege Adji Sarr moom Bougane Gueye Dany gars yi dañoo wax ne immeuble yi nga xam ne moo nekk cité kër góor gi foofee la ñu dencoon Adji Sarr Bougane Gueye Dany nee na loolee ay kàcc la waaye nag li nga xam ne moo am ba des moom Bougane daan nay wax ne Ousmane Sonko jamono ji nag maanaam fierté la ci jeunesse su man nag du ma wax kenn ngir nag lu neex nit yéen kaay gi di libération xëy ñu xibaar naan ñu Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne moom moom salon ba nga xam ne fa la ñu tuumale woon Ousmane Sonko moom ak Adji Sarr tey jii danañu jàkkaarloo ak doyen des juges tey jii la jàkkaarloo bi confrontation yéen kaay gi di ko di jee xëy diñu xibaar naan ñu am na benn waay bu tudd Modou Kandji démb atte nañu ko na tribunalum Ndakaaru Modou Kandji moom mais ab courtier gisee jigéen ñi di wut fu ñu dëkk daal appartement wala chambre maanaam dalay nax ba encaissé sa xaalis moom Modou Kandji moomee nag démb àtt nañu ko ci tribunalum Dakar ndax ñim ko def moo bëri journal bi nee ñaari weeri kaso la ñu wax ne nañ ko ko tëj yéen kaay gi di Vox ñu xëy fekk fa Malick Gakou moom nag daan nay dànkaafu nee na seeni parrainage maanaam nag bu ñu ko invalidé bu ñu ko gàntalee ci élection législative yi élection du am ci réew mi démb la ko xamle moom nag njiitul grand parti ca diwaanu Kaolack yéen kaay gi di la ko di jeex xëy duñu xibaar ñu benn bokk yaakaar jamono ju nag ci ko gu doy Ba mi nga xam ne moom la ñuy wax na yow yaa res lépp loo xam ne jëm nañ ci parrainage bi ci région de Dakar bëri na ci ñoo xamante ni ànduñu ci unanimité amu ci ndax nag Moussa Sy mi nga xam ne moo nekkoon meeru Parcelles moom la nee na ay parrain du ko jox Amadou Ba ndax nag élection locale yi nee na li tax mu ñàkk mairie bu Parcelles loxol Amadou Ba ma ngi ca mi nga xam ne moo jiite Case des Tout-Petits dëkk Parcelles moom tim nee na ay parrainage am du ko jox ki nga xam ne mooy Amadou Ba yéene kaay gi di sunu lamb xëy dañu xibaar naan ñu combat Siteu Papa taxaw na